bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah guddik tey gi mooy juróom-ñeenteelu guddi ci koor gi ak naafilaam ñeenti rakkaa doon di ñaari sëlmbal bu ci ne faatiha benn yoon tabbat yadaa ñetti yoon qul huwallaahu benn yoon ma baamu ko ñeente rakkaa doon raaka bu ne fatiha benn yoon tabat ya daa ñetti yoon xul wallahu ahadun benn yoon wasalaamaaleykum wa rahmatullah